yéene bu rafet bi nga am ci sa moroom. yal nay seen njëggal yowmal qiyaama. yal nay seen njëggal yowmal qiyaama. yàlla bu yàlla topp dara. yàlla na ko ci barke yonent bi. mën na ko man ci barke mag ñi waaw. kon sëñ bi jisaakallah waaw. waaw jawri nit nee na sëñ Mbàkke yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko lépp mën na te nangal nay li mu dag man lamal la moog sangi Tuuba te mooy jumaa janu sampal sëriñ bi biir capital ba jumaa ju rëy la taxawlu samp ca biir diggi ba jumaa ja kenn du ko laajte fis na ne jant njoloor ba fu waay taxaw di ko seenu ma faw xalam ko ba ngor ba ku ne ngi yéemu banaa cey masaali kaare ca kaar ba mar bomba ak kalu teem ba jaxal na sax ni Europa lampam wiis ya tataaru leeru ku dem ni bëccëg ba kuloori biir ya mu àndal geneen dëggi dékoor ba buntam ya ak na mu yanjeeg weram ya wër cofu Bàmba set gaak selam gala boole sedug cilin ya ca biir ba liggéey ba wér na waloore du gis nga min baru koor ba tapeem yu nooy ko maanee fa tir ko ca dër ba sonoom ba set ga bu jollee na dem ga lees dëkku yoof ba te istijoo yamu àndal noppal na gaayu peres ba fu waay taxaw dañu lay gis kamraaya war na ko fépp te kenn fu waxtu fu tollu gis motoram ba xurum jaset na te yaatu garab ya wër na ca kaw juróom bi billaahi wallaahi ii mooti naa ngir bi tabaxal ci dem ci milliard te yéen Bamba du ab état ko financé et di banque Europe du bayte maal ya ca faasit du yoy ko wet du koy ba murid yi ak ñañu xandal ñu jiite leen ne fa